صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا هن ما الأبس والسفر صلاة بسار وفي ذبر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لجاد جاد مؤمن عن النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام من لو بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد هند مقلد لبا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 waaye ñu nekk fi nga xam ne mooy ci Bëgg Bamba ci kër Baye Mor Ndiaye nga xam ne ku xam Tasawudu Subaan xam waa Thiès xam ne fii dal waayu waa Thiès la daara ji daan fi dal ba yàlla dogal daara ji am daara daaray boppam waaye tërëwul ba tey kóllëre googu ak taxawaay boobu nekk ci Baye Mor ak njabootam yëpp ndax ni ko mbokk taalibe yi di màggalee fee ci daara ji noonu lañ koy màggale fii nga xam ne mooy kër Baye Mor nga xam ne bokk na ci dal yi nga xam ne waa Thiès nañ ko bu baax rawatina waa Tasawudu Subaan tey jii nag ñu nekk ci màggal gi dend ak ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci njaboot gi soxna Anta Seck teewal fi mboolem soxna yi ak ñi nga xam ne ñoo yor euh, dal bi yëpp ak sëñ Badou Seye koo gis xam ne taxawaayam ci màggal gi sëñ Badou ginnaaw bi ñu leen nuyoo te di leen ndokkale bu baax ci màggal gi ana yan kàddu mooy yi nga xam ne ñu ngi leen fekk tey jii ci bis bi ñu fekk leen ci màggal gi ana yan kàddu mooy yi nga xam ne moom ngay barkeeloo ci bis bi tey asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal di jaajëfal Thiès Média comme suñu Abdou ni mu ko waxee rek fii cosaan la ci dal yi ndax maanaam dal yi bari gi mbari gi yëpp rek ngi soq koo fii kon lii cosaan la di sant bu baax a baax ci tawféex gi nga xam ne maanaam sëñ Tuubaa defal nañu ko ba ndigali sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko joxe woon muy màggal bisam bi mu nekk ci loolu lépp nag di ci ànd ak ki nga xam ne mooy suñu jaay mu Baye Mor njaay ndax loolu ñu ñëpp kenn ku ne xam na ni ba ñuy màggal fii nekk na ay at yu limoo limoo limoo lu man ak lu mu xam def na ko ci kon jaadu na tey jii ñu nit ñu rendre ko service ànd ak moom ci liggéey boobu ak mbokki taalibe yi yëpp di sant nag mbokki taalibe yi ñëpp bàyyi ñu kenn gis nañ taxawaay bi waaye ñu xam ne lii rek moom ab ubbiku la tey ci 18 safar gi maanaam mbir mi dëgg-dëgg mooy di safar ndax cant gi Sëñ Tuubaa lim ci woote mooy bernde kon nag ñu sant bu baax di wax ni maanaam li ngeen fi gis nii rek maanaam asaka suñu yéene la mais ñun li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg sax nekkul lii kon nag nañuy sant bu baax nañuy wax ni ñu tabbi nañ ci cant gi daal. mu mel ni sëñ Badou comme ni nga ko waxee rek sëñ bi dafa woote ngir ñu sant la ko yàlla boromam ci bis bi mu mel tey jii day tombeeg 17 safar mu mel ni ku gis nañ ko waajaleen ci wàllu njàngum alxuraan njàngum xasida waaye tam ci wàllu bernde gi day mel ni li sëriñ Tuubaa waxoon li ko tàmbalee ci gileem ba ci ginaar day mel ni taxawaayu Baye Mor ak njaboot gi yëpp saa su ne day gën a fettliku ci xeeti xéw ndax gis nañ ci image yi ni ñu waajalee maam safar gi mën nañ ne tey ji tàbbi nañ dëgg-dëgg ci 18 safar gi la ban yëg-yëg ngay am ci li nga euh, laxasaayu ne ànd ak mbokk taalibe yi nekk ko ci màggal gi waaw suñu Abdou yëg-yëg buñ ci am moom mooy maanaam lu lu ñu gis nii rek ñun ñun tuuri na ci ñun ñun moom dañoo jàpp ne cant gi sëñ waa woote muy santale ko ci bis bi maanaam luñ ci man lu ñu ci man def ko ci lu ñu ci defit taxul ñu naaw ko ndax asaka lañ bëgg dëgg-dëgg motaguñ ko buñ bu sañoon fi mu doon nii 17 safar ku fi ñëw da ngay jàpp ne teel 18 safar 18 ku fi ñëw day jàpp ne 18 safar dikkaat ñun foofu lañ nekk te foofu la ñuy woo mbokk taalib bi yëpp ci loolu la ñuy dox te loolu ci loolu pas-pas boobu daal la ñu am. jërëjëf sëñ Badou ba tey ñu ngi ciy ndokkale mboolem njaboot gi yëpp di ko tàmbalee sunu waaye boobu sëñ Talla Ndiaye nga xam ne mën na ni mooy jëwriñu kër gi nekk taawu Baye Mor ànd ak mboolem njaboot gi yëpp nag mu mel ni ñoom ñu ci bari ñu ngi ci bitim réew waaye lépp loo xam ne ay jéego la ci màggal gi ñu ànd ko soxna yi wax dëgg yàlla taxawaay bu mën na sekk kon soxna Anta sa euh, soxna Anta Seck ko mboolem soxna yëpp ana lan ngeen yëgee màggal gi ak maam lañ koy wax bëgg fàllu maa ngi bu baax te di leen siyaare di am kontaante bu baax a baax wax dëgg yàlla ndaxte Touba yaatu na am ku nekk kenn ku nekk am nga fi mbokk su leen neexoon dali feneen ba mu des kër Baye Mor Ndiaye gi waaye yéen yéen te bàyyiwu leen waaye Baye Mor Ndiaye dina mu leen sant di leen gërëm di ñaan at mu ne bu ñëwee rek maa gu ñëw gën a neex dàq fi loolu la am yéene wax dëgg yàlla li nga commencé ci sant gi Assou Ndiaye waa ba ci waa kër yëpp commencé ko ci góor ñi taala Assou bi taaw ak ay rakam waaw am nañ kontaan bu baax ci yéen wax dëgg yàlla ndaxte maa ñoom luñ ci def rek wóor na sëñ Fallou Mbacke lii moom pa yéen ñu ci am rek passé na fii te ëllëg al mu ñëwee rek day gën a neex kontaan nañ bu baax nag ci waa cees ndaxte heure bu ne nag ne am nga fi mbokk ba ma dal sa mbokk ñëw fii dal ak ñun waaye ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax am ñaan yàlla may ñu wér ak xéwal goo xam ne si heure bu dikkee rek ñu mën leen teral ba ngeen tedd waa ba kenn du ne nag ma dal neexut mu mel ni yéen waa Touba day mel ni euh, saa su ne li ngeen yëgee màggal gi la sëñ Touba sama tey ne gàcceel na sama démb day mel ni seen taxawaay ci màggal gi saa su ne rek li ci gëna a rawati mooy li sëñ Tuubaa waxoon ci téral gan day mel da ngeen ubbi seeni i ubbi seeni kër wacc seeni lal di téral gan yi loolu maam boo ko def maam ban yëg-yëg ngeen ci am. loolu xana contane rek wax deug yalla waaw buñ sañen mom suñu nee fi dugg buñ ci wañ ni ci lañuy yenn pour jox leen ndaw di leen jox ngeen lek ngeen naan du bugg ñoo sang bugg ñoo sol yéré ngir rek bëggal leen waaw lal yi mom bëgg nañoo wacc jox leen néeg yi rek waaw ngeen contane waaw lepp ci bëggal leen rek jërëjëf lépp ci bëggal leen loolu mooy kàddu sa euh, soxna Anta kon sëñ Ba du la téye lu bari. dañ lay bàyyi da nga nekk ci organisation bi ak mbokktaal bi al mooy kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi moom suñu Abdou mooy rek mooy ñu xam ni maanaam ñu ngi ci loo xam ne sëñ Tuubaa moo santaane woon ndigalu ndigalu sëñ Tuubaa lañ ci ne ndigalu sëñ Tuubaa nag buñ ci nekkee rek dañu xam ne maanaam ñu ngi ci ndigalu yàlla suñu borom ñu xam ne maanaam bis bii sëñ Tuubaa moo ko santaane woon wax ni maanaam képp koo xam ne maanaam sama mbég sa mbég la nag ma santale bis bii mu ne lu ci waay man dàmbalee ci ginaar ba gileem mu ni suñu saaliw ñëwaat waxaat ko ni bis bii bisu màggal maanaam képp koo xam ne maanaam jël nga màggal am foo xam ne fa nga ko teg kay màggal màggal gi du gisul maanaam foo xa ay tawfiix yoo xam ne day gën a kaw ki nga xam ne fonk ko kon màggal gi nañ xam ne ñun ñëpp murit yëpp nañ xam ne ndigalu suñu borom la ndax sëñ Tuubaa du def lu dul ndigal suñu ba maa yantiqu anil kon nañ xam manam ndigal li ndigal suñu borom la kon nak ñun ñepp rek nañ xam manam ñing ngi ci ndigal ndigal nak bo ci nekké jëfë rek suñu juba li mu woote bernde bernde la wax bis bu ñëwé nañ ma ci santé yalla tambalé ci giran ba gilem kon nak nañ xam ñing ngi ci ndigal ndigal nak ku ci nekk nak nang ci nekk rek bam jeex tak lool daal lool lañ ci amul joon lool am lañ ci wax kon jërëjëf badu mu melni Anta amna loy wara yok ci kàddu yi wa li ma ci wara yok moy di ñaan Anta ñaan mi aw fanam yàlla nay doj moo ki rakkam yi àndal ci kër gi ndax lii lépp moom la barke Serigne Fallou Mbacke waaw moo yor xol bu rëy xol boo xam te ne si xolu jamaa yéen ñëpp jàmm maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi yàgg ma a def lii mook ay rakkam ñu mu ci kër gi loolu day kàddu yoo xam ne mënu woon a ñàkk soxna Anta nga xam ne moom mooy aawu kër gi di aawo Serigne Talla mi nga xam ne mooy borom mooy taawu kër gi ndax li ñuy wax rek wax dëgg yàlla taxawaayu kër gi moom ñun ñëpp xam nañ ko rawatina ñun waa Thiès rawatina ñun waa Daara Tawhid Subhan kon bok talib yi xamne yéen doon baye xel fi ci ties Média li moy lenn ci li leen jele won ni fi ci magal gi ndax li le portable bo xamne ko jël fi nga xamne moy dalu keur Baye mondial fi ci quartier beug Bàmba waye fassiyena ànd ak yéen ci lépp lo xamne rek ci magal gi la du leen jox dig dajja ba ci kanam alaykum wa rahmatullah صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير